jërë ngeen jëf ami internet yi safoo xibaaru 24 actu bàkk ba jib na lees mën a wax rek moo di ginnaaw ab enregistrement téléphonique buy circuler ci réseaux sociaux yi di ay saaga ak ay wax yu ñaaw yi nga xam ne kii di l'ancien président du parlement CEDEAO di Moustapha Cissé Lo daal di ko yëkkati jëme ko si mbokkam yi nga xamante ñoom la bokkal parti bi di Farba Ngom ak Yakham Mbaye nekk na audio bi ñuy gën di partager jamono ji ba sax ci lañ ko daal di génnee parti APR bi moom Moustapha Cissé yàbbi buñ sukkandikoo rek si ëttu yëglekaay bi di Seneweb Moustapha Diakhaté daal dina yëkkati ay kàddu jëmee ko si njiitum réewum Sénégal ngir jiñ ko ne lii lépp rek di xew jamono ji ci parti APR bi lépp moom la ba tey si ay kàddoom nee na Moustapha Cissé Lo demul si presse bi deful interview rajo du télévision enregistrement téléphonique rek la def te loolu yoon da koy tere kon nag ñi ko enregistré ba pare daal di koy tas yoon da leen a topp Diakhaté moo yëkkati yooyu le kàddu ñu wéy ni ba tey ci mbiru Moustapha Cissé Lo lañ mën a jàpp rek ba tey déposé gul lettre de démission ci poste vice président à l'Assemblée nationale ndax presse bi dañoo daal di bind ne Moustapha Cissé Lo dafa annoncé démission waaye déposé gu ko fi mu nekk nii nag ñu xaaran ni ngir xool wala loolu yépp ki ko xam ne rek moo di Abdou Mbow di vice-président à l'Assemblée nationale buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di IGFM ba tey dañuy dese ni ci coowul politique yi nga xamante ne nii am na ndax gis nañ ki nga xamante ni moo di Mame Gor Diazaka dafa daal di yëkkati ay kàddu ngir xam ne ne jamono ji li nga xamante ni moo nekk di am ci parti politique yi dara warulu ko lu dul ñëw ko Sonko gi ci politique gi ndax nee na gis nañ fi boobee ba tey gis nañ ne Sénégal ñu ngi politique waaye jamonoy Abdoulaye Wade ak Djibo Ka Tanor ak ñeneen ak ñeneen taxul yi nekk nii di am jamono ji am kon nag ñu jàpp ne ki nga xamante ni moo di njiitul Pastef la di Sonko ba mu ñëwee ci kujjeeg politique gi la saaga yeeg waxante yu ñaaw yi commencé ama ci politique bi ki xam ne yooyu les cadres rek moo di centre boobu lee di Mame Gor ak Diazaka ñu wax ci leneen si mbirum sàcc oto bi ñu bëggoon def Eumeu seen benn Range Rover ba ñaari gardam dóoroon sàcc boobu boobule di Ibrahima ture ba sax dafa mujje ñàkk bakkanam Eumeu seen indiwaat na si ay leeral ndax sàcc bi daf koo xamal ne ko dañ koo fay ngir mu def bile mbir mu xamal ko ne ay jumeaux yu dëkk Kër masaar ñu xam lool ñoo ko yebaloon Eumeu seen naka daal dinay wax ne bi mooy ñeenti yoon ñu koy jéem a sàcc ndax ay jamono yu ñu génn sàccoon nañ ko ay objet yu valeur u 3 ba déposé woon na ab plainte ca brigade de la gendarmerie ba nekk ca goxam buñ sukkandikoo rek ci ëtt yëglekaay boobu lee di Sénégal 7 moo xam la yooyu les informations. ñu daal di koy jeexaleek benn ñombe bu am fële ca diwaanu Kër Massar benn Nigérien di wuyoo ci turu Victor Benjamin ay atam toll si ñaam fukki at ak juróom-ñeent dëkk Kër masaar moo doon janook tribunal des flagrants délits bu ndakaaru démb li ko waral rek benn dame mariée maanaam jéeg buy sëy tudd Aysatu Gay ay atam toll ci fukki at ak juróom-ñett moo xam le ne dafa nekkoon ci étage moom dong di repassé ay yéreem waa ji fekk ko fa daaneel ko xotti ay yéreem di làmbatu ay weenam ba pare jël loxoom teg ko ci gémmiñam ngir bañ mu yuuxu waaye waa ji nag dafa weddi ne làmbatuwul ay weenam dafa teg rek loxoom rek ci ay weenam tribunal bi nag daal dina koy tëj lu toll ci benn weeru koso buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobu lee di Sénégal 7 moo fi sa ni woon ami internet de ak actu dig daje ba ëllëg ak jàmm